bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di dellu waat di àndaat ak yéen ci xadiisu mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yi nu leen di indil tuddee ko xadiis di jour di ñaan lépp lu nu woor ci koor gi yàlla na nu ko yàlla nangul lépp luy sunuy rëcc-rëcc yàlla na nu ko buur bi jéggal xadisu tey bi day wax ci tere gi ñu tere góor muy takk or tere gi ñu tere góor muy takk or moo xam nga def ko jaaro dañ ko tere buñ naan jaaro nag jaaro loxo góor may nañ ko mu takk jaaro loxo benn benn jaaro comme nii jaaro benn lam xamee su ko ci góor chaîne xamee su ko ci góor jigéen lañu xamee yooyu long-long waxu noppi lu ñuy takk ci nopp montur góor mën na ko takk moom it bu mucc nga def ko mu nekk or dagganul xaraam gi nag buñ indee xadis bi boo gësoo yi ci boroom xam-xam yi dangay gis ne dëppoo nañ ci dëppoo nañ ci xaraamu góor di takk jaaru or wala montur wala yu mel. Euh, fan lay dagane yi danañ ci ñëw incha allah fan lay dagane góor jëfandikoo fa or lu mel ne bëñ may nañ la sa bëñ bi euh, am jafe-jafe ñu polomee ko or wala sax bëñu or dagan na bëñu or nga poose bëñu or foofu daggan na waaye luy lam luy jaaro yu ni mel loolu jigéen lañ ko may bu dee lam la jigéen bu dee chaîne jigéen jigéen may nañ ko moom mu takk or donte boo toppee xadis yu bari dajale ko di nga gis ne bariwaay bi am na yenn xadis yu koy tere maanaam or bu bare baree bari jigéen takk ko waaye lam cay jëfandikoo mu toll ci chaîne walla lam wala y long-long yu ni mel yooyu dagan xadis bi abdullah ibn abbas radiallahu anhuma moo ko nettali abdullah ibn abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa raa xaatiman min dahabin fi yaddi rajulin fa nazaahu wa taraxahu yonent bi dafa gis benn jaaro ci loxo kenn ci saxaaba yi jaaro bi nekk jaaro or yonent bi nangu jaaro bi sànni ko nangu jaaro bi sànni ko daldi ne yacmidu ahadakum aw ahadukum ila jamratin min naarin fa yatraxuha fi yadihi fi yadihi ndax kenn ci yéen day tey jël xalu safara jël xalu safara di ko teg ci loxoom di ko def ci loxoom yenent bi daal di wane ginnaaw bi mu wanee ginnaaw fa xiila am ñu wax waa ji ne ko baadama dahaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xuz xaatamaka intafi bihi fa qaala la wallahi la axuduhu wa qad taraxahu rasulullahi sallallahu alayhi am ñu ne ko waaw jaaro bi jël ko nga jëriñoo ko ci leneen mun leen maa ngi waat ci yàlla lu yenent bi jël sànni ko dootuma ko laalati xadis boobu muslim moo ko solo xadis mille quatre-vingt-dix beneen xadis bi koy tere nasa yi solo ko xadis mille cent quatre-vingt-huit abi saidin alxudri radiallahu anhu moo ko nettali daf ne anna rajulan qadima min najrana ila rasulillahi sallallahu alayhi wa wa alayhi xaatamun min dahabin fa aarada anhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala innaka jitanii wa fi yadika jamratun min naarin mu ne dafa am jenn waa ji jógee najraan ñëw ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi takk jaaro or fekk mi ngi takk jaaro or yonent bi du mooyu ko wan ko wan ko ginnaaw du mooyu bi ko du mooyoo daal di ne ko yaa ngi ma dikkal fekk sa loxo bi yaa ngi ci def xalu safara yaa ngi ma dikkal fekk sa loxo bi yaa ngi ci def xalu safara kon boo jëlee jaaro or takk yow góor yaa ngi jël xalu safara def ko ci sa loxo kon dafa xaraam monturu or góor takk ko dafa xaram jaaro or góor takk ko dafa xaram léegi nag da nga gis góor goo xam ne nii ma ngay ndamoo lépp or ba ci sax portable or maanaam portable léegi ñu ngi ndamoo yu mel noonu portable boo xam ne or nga ko defee jëfandikoo or ci yu mel noonu yépp dafa xaraam ci góor muy takkaay ba lu mu ci dafa xaraam yére bi bu fekkee dañ ci jël or defar defar ci or ci yére bi yépp dafa xaraam fan lañ ko mayee ci la ñuy ñëw ci xadis bi fiñ ko mayee mooy lu mel ni ki euh, bëñ bu damm nga poose ko wala nga jangee ko li nga xam ne mooy or ñu polombee li nga xam ne mooy or dafa am benn saxaaba bu tudd arfatam na asaad arfatum na asaad dafa am xare bu ñu doon tuddee yow mu kullaab mu demoon ca xare ba ñu dog bakkanam fa taxada an fan min wariqin mu jël bakkan boo xam ne ñu ngi ko defaree xaalis lañ ko defaree xaalisu xob lañ defaree bakkan bi fa antana liñ ko defaree mu toog ab diir rek bakkan bi infecté bakkan bi tàmbalee xeeñ fa amarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa taxada anfan min dahabin yenent bi digal ko ne ko mu defar bakkan boo xam ne nii dañ koy defaree or dañ koy defaree or maanaam ñu pooseel ko bakkanu or au lieu que bakkanu xaalis waa ci la boroom xam-xam yi jëlee fuqahaa yi ci ngir yépp wala boog mën naa ne yi ëpp yi ma ci gis gisuma ci ngir mu ko tere rawatina ngir mii nuy ëpp lu ñuy jàngale muy ngiru Maalik daggan na ci xadis bi buñ ci sukkandikoo ñu pooseel la bakkanu or bu fekkee sa bakkan dafa dagg am ñu am technique gu mën ko poose wala boog bëñ bëñ bëñ bi ñu polombee ko li nga xam ne mooy or wala boog bëñ bi ci boppam ñu poose ko mu nekk jëmmi or bu mu ci daggan na waaye daal di xaraam mooy def ko jaaro da nga gis koo xam ne jaaro bi nga xam ne moom la euh, xaw ma fiancé lañ koy tuddee xaw ma waaw ki mu bëgganteel jaaro bi mu ko may ku jigéen or la mu koy ndamoo fu mu toll di ko takk yow mi doon takk or tey seetaan vidéo bi tekki ko di góor bis ni ngi tey nga tuub xam ne xalu safara nga doon takk sa loxo bi soo ko bàyyiwul ba faatu suñ borom mën na la cee duma ëllëg kon xadis bi tey loolu la woon di wattandiku wattandikuloo takk jaaro or daganul monturu or daganul ci góor jaaro lang lam lam chaîne long-long ci nopp bu mu ci bu dee or dagan na ci jigéen mais xaraam na ci góor lii lañ leen indiloon ci xadisu tey bi di ñaan suñu borom defal nu dégg a topp ba lëg ak jàmm ci beneen xadis inchaa allahu taala wa